ci diggante France ak ñii di waa Côte d'Ivoire ak France ak ñii di waa Afrique du Sud waaye moom kat dafa jóge woon ci resemblement boobee waaye nag kenn xamul woon lu taxoon mu jóge fa jamono jii nag xam nañu lu tax mu jógee fa moom mii di Ngolo Kanté ma nga ca Mali li tax mu dem ca Mali nag moo di moom nee na dafa bëgg a am carte d'identité Mali te wut na ko ba noppi ba mu ko wutee nag ba noppi dem na ci dëkk bii ñu naan kaay kaay nag fa la ñu denc papaam dem na siyaare barabam ba ak magam bu góor it foofee lañ ko denc dem na siyaare ko kon kii di Ngolo Kanté loolu moo taxoon mu jógee ca équipe nationale bu France. ñu jógee ci Ngolo Kanté dem ca waa Real de Madrid ñoom nag latéral gauche bu ñëw jàppale Ferland Mendy la ñu bëgg ndax Marcelo daf fay jógee waaye ñaari gone yii waa Real ñoo ngi càmbar seen mbir muy kii di Franck Garcia ma nga ca Rayo Vallecano te Real de Madrid moo ko formé te am na ndigal ci gone gi ndax bu ko Real bëggee. cinq million d'euros képp lay jox waa Rayo Vallecano mu ñëw foofee jàppale Ferland-Mendy te gone gi ca Liga ba ma ngay doxal bu dee keneen ki mooy Miguel Gutiérrez Miguel Gutiérrez nag joueur Real de Madrid la daan na ñëw sax ci équipe A bi dafa gëj rek waaye jamono ji ma nga ca Castilla ci équipe bu réserve bu Real de Madrid gone googee tamit bu ko Real bëggee da koy yéegal rek ndax Real la ko moom moo tax Real mi ngi càmbar mbiru ñaari gone yi ñu jugee ci waa Real de Madrid dem ca waa Barcelone bu ñu sukkandikoo ci ESPN na li mu xamle moo di ñii di waa Barcelone ñoo ngi càmbar contrat wu kii di Ronald Araujo la ñu bëgg moo di li nga xamante ni gone gi mi ngi koy fayeeku toll ci deux virgule cinq millions d'euros ñu yokkal ko ko ba mu yegg ci cinq millions d'euros ñu xaati mag moom beneen contrat waaye yëf yooyee nag. yembagul ba léegi li ko waral moo di kat ñaari club yu nekk ca Premier League ba dañuy piis gone gi ay gët gone gi lañ ko xamal moo di boo ñëwee ci sunu club yii li la Barcelone di fay dinañ la fay ñaaram 5 millions la la Barça di fay boo ñëwee fii dinañ la fay 10 millions d'euros club yooyee mooy Liverpool ak ñii di waa Manchester United loolee nag moo ub bopp ñi nga xamante ni ñooy agent wu gone gi loolu rek mooy yéexal mbir mi waaye gone gi moom lu mu am toog ca Barcelone moo ko ko gënal waaye lépp agent yi ñoo ñoo koy dogal kon yëf yi nag mu ngi noonee ba léegi di taga témbe waaye dara du leen ci ump lu ci xew rek di ngeen ko am fii ñu jógee ci waa Barcelone dem ca waa Borussia Dortmund doomu Suisse bi di Akanji nag léegi leer na bu saison bi jeexee day jógee foofee ca mun li ko waral moo di kat gone gi waxoon na waa mun dama fay jógee te loolee kat waa mun neexul leen ba taxoon sax ñu woo ko ne ko kaay ñu waxtaan ngir xaatimal la beneen contrat waaye Bild li mu xamle moo di gone gi dafa lànk kandaare dem waxtaan xamal waa Borussia Dortmund moo di bu saison bi jeexee daal damaa bëgg ngeen ñaanal ma ma dem feneen ña ko bëgg nag bëri nañu waaye club bi nga xamante ni moo gën a taxaw fur jënd ko mooy ñii di waa Manchester United ndax gone gi bëgg na mën sa Manchester te Manchester mu ngi koy bàyyi xel ñu jugee ci waa Borussia Dortmund dem ca waa Marseille bu ñu sukkandikoo ci La Provence moom li mu xamle moo di doomu Argentine bii di Léo Balerdi moom kat saison wam jeex na tàkk ndax gone gi dafa gaañu woon ca mbaggum càmmoñ ba te jamono ji opéré nañu ko ko ba noppi nag la ñu xamle moo di dina toog ñetti weer ba ñeenti weer du football te saison bi kat li ci des boo ci génnee ñeenti weer day jeex tàkk moo tax kat gone gi saison jeex na kon nag fu fële ca Marseille seen défenseur bii kat dina leen wéetal ci li des ci saison bi. ñu jugee ci waa Marseille dem ca waa Juve bu ñu sukkandikoo ci Corriere dello Sport waa Juve li ñu bëgg moo di Alvaro Morata mii nga xam ne Atlético moo ko abal ñii di waa Juve abal googee nag dafa ànd ak option d'achat ñoo duroo waaye Juve li mu bëgg moo di ñii di waa Atlético de Madrid wàññi ko ba 15 millions d'euros ñu jënd gone gi loolee nag ñii di waa Atlético bu ñu ko bañee ñii di waa Juve am nañu beneen pexe bu ñu bëgg la ñu xamal Alvaro Morata moo di bu Atlético nanguwut jaay ñu la ci quinze millions d'euros yow mii kat li ñu lay ñaan moo di boo delloo ci Atlético de Madrid benn saison képp moo lay dese foofe li ñu lay ñaan mooy bul xaatim benn contrat bu sa saison jeexee dinañ la indi fii nga ñëw doxal ak ñun ndax contrat bi nga xamante ni moo ko lëkkale ak Atlético de Madrid 2023 lay jeex kon bu jógee ca Juve bu fa demee benn saison képp la fay football loolee nag la ñii di waa yuufe nas comme ay pexe nga xamante ni bu leen ko Atlético jaayut ren rek bu deween jéegee day ñëw gratuite ñu waxaale salaire rek fay ko mu doxal ñi yëf yi foofu la buuree ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ci kanam ak beneen vidéo incha allah